assalaamu aleykum assalaamu aleykum wa wa barakaatu bokki jullit yi noo ngi leen di nuyu ci ndigalul sëriñ Abdul Fattah mii toog di leen ndokkeel di leen baal xaq te di leen balu xaq yàlla na nu yàlla boole jëkkal di bokk di sant yàlla bu baax ci may gim mu mayoon ñu fekke weeru koor lañ ca jot a jëf mu néew mu bari yàlla na ko suñu boroom nangu mu mel ne weeru lëmm jóge na ci suñu dund te du dellu waat ñu war caa jàng ne lu nuyoo rek tàggoona ay fan ci gannaaw jàmmante yépp daana ca bokk ndax yéen a ngi waajal koor gi tey jii mi ngi nii di dem yàlla nu fi bàyyi ci jàmm te fekkaat nu fi ci jàmm kenn bañ koo wuute sëriñ bi nag jël duñu dénk ñu gën a fab sunu tànk teg ko ci taqwallah ak sukkandiku ci moom taqwallah nag gudd gàtt mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere suñu boroom ne ku jëfe ndigal yi bàyyi tere yi lu mu dugg lu mu rëy rëy bunt ba ko cay génn suñu boroom moo ko koy sàkkal ca mbir ma wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaytu laa yaxtasib waaye nee na ku teg tànkamit ci walla lu jafe ñépp mën naa yomb ci moom lool wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra waaye nee na ku teg tànkamit ci taqwallah bu ëllëgee rëcc-rëcc yam xamoon ak yam xamut yépp suñu borom mën na ko ne mën na koo far ni ni aw lan ci yàlla boole wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra bi nag wax ne ci fan yu néew ci gannaaw ku ko seetlu da gis ñetti aayay alquran yu suñu borom doon wax ñun ñu teg suñu loxo teg suñuy gët suñu boroom waxoon nañ ci alquran ne yuqallibu llahu layla wan nahaar inna fi dalika la ibratan li ulil absar sunu boroom wuutal gi muy wuutal guddi indi bëccëg wuutal bëccëg indi guddi nee na ku ci jàngewu dara am xelam gàtt na njàngum kese ca nag waaye newoon na it dana leen wan dana nu wan ay kaawtéefam tàmbalee ko fii nu gën a jege ba faa ba ñu xam ne moom yàlla daal mooy dëgg sa nurihimu ayatina fi laafaaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu lxaq bi may ba ca topp moom lay mujje bokk yi fan yii nga xam ne moo jàll yaar ba yetti weer suñu boroom wëlbati na fi jamono wëlbati goo xam ne ku yebu tàmbalee ci moom yam ci moom rekk te su ma waxee tàmbale suñu bi yem ci yem ci moom mooy tàmbale ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi ndax suñu sëriñ bi ni ko sëriñ Muntaxa di waxee bi mu fi nekkee ba bu ñu ko mujjee gis yépp ci boromam la nekk kon ku topp ci moom ne ko jàkk di xool yaa ngi ci topp suñu borom fan yi weesu nag yàlla wan nañu ko ñu gis ko bokk yi li fi gën a fës ci ab xew-xew ci jamono mooy ñi jógoon ay la wax ne dañuy sàkk ku leen dink suufu Sénégal si ak li nekk Sénégal lépp loola suñu boroom wan nañu ci ne ku yabu tàmbalee ci moom yam ci moom ba ñuy tànn tànn nag boo ko gisee dana am ñu jàll am ñu jàllu te it tànn ci wenn xeet lañ koy def bu ñu ko jëlee misaal ci lu ñu gën a jege ña suñu borom tànn rek ñoo jàll bokk yi nit dana jël aw jiwoom def ko ci ak leket leket gu ràmm def ya muy def ci biir jox ko as ngone mu yanu ko ne ko bul wax loolu lépp gone ko dañ koo tànn tànn jiw wa waaye bu ñu demee ba kay tooba tooba ba ñuy cof di sànni dana am fépp yoo xam ne du dem ca po tooba ma tànnuñu leen waaye bu demee bay saxet dana am yuy sax am yu dul sax ya saxut dañ leen a tànnul suñu demee ba ñor ba yëpp ne saññ sa gub it dana am yoo xam ne duñ ko jot a góob ay ficc ñëw for ko yóbba yóbbu tànnuñu leen ñu war a bokk ca gub waaye buñ ko góobee ba yóbbu ko ca dàggaje it bu ñuy bojj am na yoo xam ne fa ñu leen fa ñu koy banqué di ko dugal ca tuq sax wala gënn ga ca la ñuy ruuse wadd kontaan nu ñu leen ngir ñu war a dugg ca gënn waaye bu jógee ca gënn ga yi ba war a soq ko yóbbu ca kër ga noona dana am yu wadd bu ñuy soq noona bu ñuy foofu noona bu ñuy wal noona bu ñuy mooñ ba àgg ci siim bu ñuy dem bay siim it gone dana du mën a a yóbbu ci gémmiñam nam ko waree am yu wadd waddaat kontaan leen ci loolu nag danañ ci gis lu kiimaane li yàlla ne dana wane ci ay kaafu téefam ci gox yi tàmbale ko ci nun la wax yooyee am na ca koo xam ne li feeg néewagutoon ne danaa bëgg a dama bëgg a bokk ci ñiy tànn jox leen réew mi du faatu am na ci koo xam ne fekkewu ko am na ci koo xam ne it ñay tànn nee nañ ko mën ngaa bokk ba mu bokk waaye moom itam ba yëfey sotti fekk ko ci sagoom ba ñuy samp ka ñuy samp ci coobaree suñu boroom fan yooyu néew la ko fi yàlla jëlee ñoom ñëpp yàlla leen yàlla yërëm te jéggal leen te defal ñu xool bu ñu leen mën a muñe waaye ki nga xam ne it moom la yàlla dogal ñu tànn ko lu yéeme la sa nurihimu ayatina fi laafaaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum alxaq koo xam ne ba muy um koor fi barab la ko fekk ba koor ga demee ba sori yàlla tànn na ba noppi ne ay feppam jeex na foofe mu nekk waaye yàlla dogal na it fepp yi nga xam ne tànn na ko mu war koo jëfandikoo li des ci koor gi am na feneen fu mu ko war a fekk fu dul foofee dafa la ko fekk ren kon boog yàlla nu yàlla dimbali ba ñu tàmbalee ci moom yem ci moom kepp waaye ba may jeexal tënk na lépp suñu boroom dafa ñu wax ci alxuraan ne juróomi yëf a ngi ni yoo xam ne dénku kenn moo ko téel boppam moom daal euh, moom daal nag soo ngeen gisee mag ngi daan firee wax waxdahu la sharika lahu waxdahu moom daal mooy koo xam ne kenn mësu koo fekk fa mu nekk te kenn dutu ko fa fekk nee na juróom yi dénk ko kenn moom daal moo xam moom daal moo xam kañ la bis penc taxaw moo ne woon ci alxuraan la taatikum illa baxtatan waaye nee na moom daal moo xam taw bii donte xam-xam wane na ni suba sa ngoon mën naa taw wala ginnaaw suba la xam-xam ba yàlla téye ko jox kenn mooy taw boobee lan lan lay ñoral loo xam ne nit da lekk wér ci wér dem wala nit da lekk ñu wala ñu saraxale ko tax waaye nee na it léeg lekk nit gis tase jigéen ci mbedd mi ne tarafet xool ko xam ne kii kat bokkut ak nam meloon nam ko xamee woon kon soppi ko na lam àndal xam-xam dem na ba. di tàndale naan góor lam jigéen la wala kenn la wala ñaar waaye la ca yàlla téye joxu ko kenn mooy kii day gudd fan wala day gàtt fan day am wërsëg wala da koy néewli day taxe ëllëg wala day taxee di ak day am taxawaay wala day ak ndaama lay doon waaye ba ci topp te wënu ko jox ko kenn mooy tey nit ki mën naa am dara mu néew mu bari waaye wóoru ko ba xam dana àgg ëllëg suba dana am lam amoon tey waaw wala déet waaye ba ci gën a yéeme mooy nit ki xamut san suuf lay faatoo nit dana toog ci am réew ay at yi at xelam du mas a nekk ci génn waaye saa bu digg ba accès génnam day yomb lool ndekete yoo day dem war a faatu ci inna allaha indahu ilmu saa wa yunazilu alxaysa wa yaalam ma fi larxam wa ma tadri nafsun maada taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut inna allaha alimun xabir yàlla mi nga xam ne xam na lépp dañ kumpa ci lépp ñun ñii dañuy xam dara ba foo ko gisati ëllëg xàmmee ko waaye yow mi laata nga koy xam wala mën mi laata ma koy xam suñu borom xamoon na ko bu yàgg yàgg te dañoo ne ci kumpa xam na fépp fu muy mujj kon boog sëriñ bi nee na ñun ñëpp nañu gën a maase fab suñu tànk teg ko ci taq wallahi jëfe ndigalu suñu borom yi te bàyyi ay tereem te wéeru ci moom te bàyyi kook suñu bopp mi ngi ñaanal nag ñëpp la ñu jaamu yàlla ci koor gi yàlla na ko yàlla nangu mi ngi ñaanal ñëpp rëcc rëcc yee ca jot am yéen ca xam ak yéen ca xamul yëpp yàlla nañu ko suñu borom jéggal di ñaanal ñëpp nawet bi nga xam ne moom lañu dëgmal yàlla nañu ci yàlla yóbbu suñu borom wàcceel ñu ndox mu barkeel mu ñoral moo xam ne la cay ñore lépp ñun ñëpp danañ ko bokk muurloo di dellu di nga xam ne moom la. suñu borom teg kilifteefuk dëkk bi ci loxoom muy suñ abu baraka si bu fata mooy wax ñaan googu bu ko yàlla nangoo yàlla na ko nangu yàlla na ko lawal ci njaboot gi yëpp waaye it yàlla na ca baal xel bu baax a baax ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk nekkal fi Cheikhul Khadim te it liggéeyam bii nga xam ne moom la di liggéeyal Cheikhul Khadim di ko liggéey yàlla jaarale ko ci sëriñ Touba nit ñi war koo jariñoo mu jariñ leen tey ëllëg sëriñ bi nee na saa bu geesoo rek yàlla nañu gis ñu topp ci moom di ñëw bokk kook moom di ñaanal ñëpp di sant ñëpp kat yi mu waxoon gën naa gudd gën naa jot waaye loolu la ci waxtu maye ak sama xel mu gàtt yàlla nañu ko fekk déwén te déwén dàq ren fuuf te it nee na naay baamu la kooko waxoon suñ fallu rek barkeeloo ko ca ba mu ñëwee ne ko dama laa soxla waxtaan mu ne ko maa ngi lay déglu mu ne ko ah ci wéet laa ko soxla woon mu ne ko wéet ga day su wéetee it ñii moom maag ñoom benn lañ danaa leen ko waxaat mu ne ko damaa topp borom barak bi ba gisatuma ko ma ñëw ci Cheikh Moustapha ba gisatuma ko mu ne ko ah léegi nag mu ne ko ma ñëw fi yow fas yi ànd ak yow lu yàgg yàgg yàgg yàgg mu ne ko bul noppi yàlla na fi nekk lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg te bàyyil ñu suñu ak mbokkam yu tedd yi mu àndal suñu Abdou Lahat Cheikh suñu Cheikh Awa Balla ak mboolem seeni doom ak seeni dongo fan wu gudd ànd ak wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñaanal ko